góor gi ñu lay ziar. yàlla na yàlla nangu ziar. waaw tey dañ laajte lan mooy sa motivation ngeen teel a ñëw teel a yow ñëw jàpp ci set setal almeeri Pikine. Euh, man la Ndiawar Ndiaye. brigadier chef de polise à la retraite. bokk ci euh, comi comité des volontaires pour les cimetières. bokkaat ci sama suuf ma yokk sama armel sama suuf ma yokk sama armel nag soo ko déggee. armeel yi dafa xat dafa fees parce que armeelu 56 ba léegi fees na set c'est 4 hectares la woon fees na ba fi mu nekk da ngay gas jël nit teg leen nit loolu moo tax ñu ñu ñu ñu ni sama suuf ma yokk sama armeel bëgg na ku ñu si dimbali ndax fii ñu baax a fi tëdd fii ñu jàkkaarlool Jo Mbaye moo fi nekk fee Cheikh Talibou Cheikh Talibou du du Dukkure Pikine moo fi jëkk indi Cheikh Cheikh Khadir fii ay shérif a ngi fi ay mbàkke mbàkke fi ñu sant Bousso ñu sant Fall ñëpp a ngi fi ñu baax ñit ñu baax a fi ñu jóge bitim réew sax ñu indi leen ñu jóge géejawaay géejawaay fii ba cees dañ fiy indi seen i rob fii ba dakaar dañ fi indi seen rob kon nag armée li fi du armée lu Pikine mais armée internationale la ñu buggoon nag ñu yokkal ñu ko mais kon ñaari comité yooyu nag ñoo àndandoo lëkkaloo boole seeg ñaan gu nangu bu sëñ Baari Mbàkke bu sëñ Xaadim ndax da moo ko daan bay moom dong moo ko daan bay ak ay waa këram waaye nag si biir loolu lépp dañuy dañuy ñaan dañuy ñaanal Abdoulaye koli coordinateur ak Cheikh Ale Cissé Cheikh Ale Cissé cheikhu cheikhu Serigne Touba waaye dafa ni moom du cheikhu Serigne Touba taalib taalibe taalibe yi la lii lépp suñu demee ba àgg feewu ñaar ñooñu daanaka seen loxo moo si nekk Abdoulaye koli muy suñu doom muy doomu doomu alkaati mooy bu retraité ak Cheikh Alé Cissé Cheikh Serigne Touba délégué de quartier ñooñu daanaka ñooy ko ñooy ñooy coordinateurs yi ñoo ko piloté ba mu egsi fii nit ñi nag wuy nañ nañu li jóge Géejawaay ak li jóge Pikine nag li jógee ginnaawraay daanaka ñoo fe ñoo feesal armeel yi sëñ Baari moom la mu waxoon wax na ko def na ko taalibeem ñëw nañu c'est kuy ñëw da nga indaale sa matériel teew na kon nag ren sunu ñaa sunu mbay mi c'est très particulier dafa am ñaan gu si laxas motivation bi nag ñun dañ cee am cosaan bala ñoo àgg sax ci cosaan li dañuy ziare comité bi nga xamante se ni ñoom ñoo séq armeel yi ku ñuy wax sëñ Ablaye li di ko coordonné ànd koog ñoom jëwriñ Ali Cissé ak ñoom bàyyi Njawar ànd koog mag yi pikin yëpp ànd koog gaay yëpp di leen siyaar ci seen taxawaay wante ñun ñu am ci benn cër boo xamante ne dafa xaw a particulier ñuy njabootu sëñ Baari Mbacke mu sëriñ Xaadim mu Cheikh Ibrahima Mbacke mu sëñ Touba. ndax yàlla dafa def 2002 maamam ju tedd di yaakaaram di Cheikh Saliou Mbacke joxoon ko ci ndigal 2002 ñu ñëw fii booba métti woon na lool di fi yeesal armeel yi ñu dem ba doomu Pikine yi xam ni segam ñëpp a déggan jógee ma saaga woon yàlla. ñoom ñu jël yëf yi daan duñ ko bàyyee ak kenn dem sax ba nangu ko ci loxoy sëriñ bi. ànd koog nag njabootu sëñ Baari Mbàkke gépp ànd koog waa Pikine gépp ànd koog mën naa xam ne département Pikine Guédiawaye gépp kenn desul. ñëpp ñëw ndax armeel yi kenn ku nekk boo fi amul ndey am nga fi baay baa nga am fi maam baa nga am fi mbokk loolu moo ñu motiver ndax armeel ku ne xam na ni ñax yi bërki démb rek boo fi jaaree sa yaram day daw doo am foo jaar. tey tamit am na nit ñoo xamante si nii bi ñu dencee seen néew yi la ñu gëjoon dugg ci barab bi ngir ñaanal leen ñun nag lañ ciy jaamu yàlla di fi aussi ngërëmal yàlla waaye di fi aussi ngërëmal Serigne Touba mais aussi tamit di fi aussi ngërëmal Serigne Saliou Mbacké ànd ko kook Serigne Bari Mbacké ibnu Serigne Khadim loolu mooy sunu motivation ci armeel yi. ñu bëri ñu ngi naan armeel yi waaye armeel yi si wàllu boppam ñun bañ ciy taxaw di si wax du tey boobu gisuñu woon kenn te loolu mooy dëgg. sëriñ bi nag si wàllu boppam ñun bali ñu tàmbali si suñu wax dañ koy sant di ko gërëm si pastéefam ak liggéeyam fii si armeel yi si wàllu boppam armeel lu Pikine yi si wàllu boppam depuis 52 la 52 ba léegi si wàllu boppam armeel yaa ngi fi taxaw mu nekk 4 hectares ko ni ko alosaay ñi jël kàddu waxee 4 hectares yi fees na bu yàgg amatuñu benn place boo xam ne mën nañu fi denc nit moo loolu ñuy demande extension bi pour ñu yokkal ñu ko boobu ba léegi nag ñu ngi si di dem autorités yi gis nañ leen gis nañu population bi gis nañ ñëpp waaye ñu ngi ñaan rek yàlla nañu yàlla dimbali kenn mën nañ ko bëggee ala sa yàlla doxalee ko noonu si wàllu boppam. armeelu Pikine ay wëliw ñu ngi fi tëdd ay kilifa ñu ngi fi tëdd ay imam ñu ngi fi tëdd sëñ Mansour teg na fi tànkam sañ Abdou Karim teg na fi tànkam suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi doon tam muy mbàkke mbàkke yi nañ fi seen tànk waaye ñu bëri ñu ngi naan armeelu Pikine armeelu Pikine tey la ñu wax armeelu Pikine mais ñun nag ñu ngi ñaan ak armée lu Pikine ñu yokkal ñu ko alosaay ci nu mu gën a gaawee ci ni mu gën a baaxee. waaw man maa imaamu Gazel grande mosquée bu gasel Gazel euh, juddoo Pikine màggee Pikine yaroo Pikine suñu waajur yi ay nit ñu baax yàlla def ñu tëdd fii mu nekk barab bu sell barab boo xam ni ay wëlu yàlla ñoo fi nekk boo tax at mu jot buñ koy setal ñu dagg suñu yitte yëpp. ñëw ànd ak xale yi ànd ak suñu doom yi ak suñu jarbaat yi di leen jaajëfal di leen encouragé pour liggéey bi gën a yomb loolu moo ko waral. waaw gis nañu tamit almeer yi xar na ba pare tamit ah, ñi doon dégg temps yi ñu naan ah, di leen doon sàkk pour ñu yokk ko ba léegi loolu yéen fan ngeen ci tool. waa loolu dafa jaadu armeel yi dañ ko war a yokk dafa jaadu ndax armeel yi bu fekkente si ni yaa ngi fréquenté armeel yi nit ci kaw nit ngay gis kon yokk armeel yi dafa jaadu. gis nga ba pare ma bàyyiloo xel àdduna euh, bi yëpp ma bàyyiloo leen xel gis nga ñiy kaas pour ñu yokk armeel yi kaasuñu ko pour dëkk fi kaasuñu ko pour seen bopp kaasuñu ko pour seeni waajur dañ koy kaas ngir nañ yokk armeel yi ndax ñooñu koy ñooñu ñuy sàkku ci ñoom ñu yokk ko sax mën naa am kenn ci ñoom suba fii la war a tëdd kon loolu ñuy laaj dafa légitime ba pare dafa jaadu ba pare loolu aussi waruñoo waruñu cee xuloo waruñu cee xeex waruñu cee xëccoo lu loolu bu fekkente ne seeni jàpp ne na ñu yombalal ko nit ñi ñu yokk armeel ndax lu légitime la kenn kaasul dara ngir sa bopp wala ngir say bokk dañ koo kaas ngir jaamu yàlla yi ndax fii nag kër la goo xamante ne si nii dafa mel ni néeg rek ku la fi jiitu dalay xaar rek mais yaa ngi ñëw. sama yaram dafa daw ndax ku li nas saa yi xasul mawt bakkan bu ñam dund dina ñam dee lu fi waay def sa bopp defal. di nuyu hôpital bi nga xam ne falaa laa mooy Dominique ndax bu ma fa liggéeyul woon kon du ma am xelum ñëw fii ma fi ñëw di jaamu yàlla fii di nuyu Assane Ndiaye Nogoy sekk tonton si képp ku nekk Dominique maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di wax ne armée de Pikine nii Macky sax war na war nañ si mën a dimbali parce que moom ginnaaw yàlla moom mooy réew mi waruñoo ñaan armée de Pikine pour ñu yokkal ñu ko ñu ngi ciy dawloo warta mën a nekk buñ la ñaanee foo xamante ne dañ ci war a yokk armeer waruñu si nekk di jaabante xam nga lu ñu war a wax dem leen ngeen jël ndax ku ci nekk am nga place ñoom ñooñu ku ne di ngay am place étances yi oto yi kër dañ ko fi ba fii mooy këru dëgg kon buñ ko soxlaa dañu ci war a jàppale bu baax a baax a baax a baax waruñu si nekk sa di di mas di ñaan warta mën a nekk man loolu rafet la wu ma ko ndax def nañ fi marché bu rëy boo xamee ni rajo yëpp télévision yëpp génne nañ ko waaye ba léegi bàyyeeguñu dañ doon xaar rek ba ñu bay armée yi ba armée li gën a leer ndax ñu nit ki soo ko soo bëggee dara da koy woon ba mu teg si bëtam li nga teg sa bët du luñ lay nettali ndax fii si ginnaaw am na fi am na fi au mën nañ fi am au moins 7 hectares 50 yoo xamee ni yu wóor yoo xamee ni suuf la danga siy dox c'est dara new fa lu ay tool ay tool kon nag bu ñu nax nit ñi di wax ni barax moo fa nekk ndox fa nekk ndox nekku fa la ndox yi nekk matul matul un hectare c'est fii si ginnaaw des na douze hectare cinq cent kon yaakaar naa ni war nañu mën a jox lu nu yokkee armeel yi waaye nag autorités yi ñoo si seen loxo ndax li nekk si Pikine si borom kàngam si bor borom barke borom daraja ñoo xam ne seen i waajur fii lañ leen denc ñoom ñëpp suñu takkawoon ni ñuy tabaxee étage kon léegi ñu yokkal ñu ko léegi ñu yokkal ñu armeel yi bàyyiwuñu suñu loxo ba léegi ñu ngi si topp xanaa bu fekkee ne waxtaan nañu ak kilifa yi ba noppi léegi nag li ñu war mooy toog déglu leen suñ leen dégloo déglu déglu déglu ba euh, waxuñu dara defuñu dara ñun ñu jóg alors continuer suñu su suñu xeex suñu xeex nag mooy xeexuñu xeexu saayir suñu xeex mooy yar ak teggin alors di fexe daal di sàkku li ñuy joxee fii si wàllu boppam ñu yokk armée yi ndax armeel yi armée lu ñëpp la képp ko julli rek yaa ngi ci biir fii kilifa bu nekk denc nañ la fi kilifa bu nekk denc nañ la dama na la 56 ba léegi maa ngi fi kon kenn gënu ma xam li fi nekk si wàllu boppam te sama kër ak armée yi ñoo taxaloo waaw. armée yi man man sama waxtu si bëri man na ma waroon wax yëpp kilifa yi wax nañ ko man gannaaw dama bëggoon ñu yokk armée yi ñu jàppale ñu ngir yàlla yokk ñu yokkal ñu armée yi kon lu soxna si wax léegi rek ñu jàppale ñu dimbali ñu ngir jëm Seydina Muhammad ñu yokkal ñu ndax armée yi na armée dafa xat instant ñu yokkal ñu ko jox ñu fii ndax suuf ñoo moom war nañ si def ay maison de la femme war nañ fa def dara dañ war a yokk armère ndax armère ñëpp ñëpp ay dee am naa si place comme la ko soxna si waxee léegi léegi am naa place am nga si place keneen ak keneen kon dañoo bëggoon tey jii ñu yokkal ñu armère yi loolu lañ ñu yokkal ñu armère yi tax daal ñu ñëw tey jii di si jàpp ñu bay bay bi moom chaque année yéen xam ngeen nu mu demee léen ñëw xam ngeen nu mu demee yëpp mooy loolu waaw am na kuréel bu ñuy wax sama suuf ma yokk sama armeel kuréel boobu ñu ngi yëngatu boobu ba léegi di ñaan euh, autorités yi pour ñu yokkal ñu suñu armeel ndax ci ginnaaw armeel yi am na nee nañu douze hectares point sept yoo xam ne mi ngi foofu naam am na lu ñu occupé am na fu ay kër nekk waaye am na lu des ñu bëggoon daal kilifa yi déglu ndaw ñi déglu population yi ndax seen bëgg-bëgg la comme fii titre foncier la état bi moo ko moom ñu bëggoon daal kilifa gi président Macky déglu ndaw ñi recevoir leen waxtaan ak ñoom ñu xool naka lañuy ñuy yéwénale loolu bu ñu waxee dëgg rek armeel yi fees na daanaka dañuy tagale léegi néew yi te loolu xam nga ni rafetul sellul ci doomu aadama moo tax daal ñi ngi ñaan kilifa yi ñu déglu ndaw ñi xool naka nañuy fexe ba yaatal armeel yi ndax am na espace bu yaatu bu des fii ci ginnaaw boo xam ni war naa mun yokk ci armeel yi ban message ngay joxe autorités yi. autorités yi message bi moom leen di njëkk a jox mooy surtout autorité yi nga xamante ne dañu dëkk ci territoire Pikine nga xamante ne si nii lii nii compétence transfert transféré wu maire la ndax ci environnement wu la dëkk. commune Pape Gorgui ci lañ nekk heure bi waroon na fekk municipalité bi taxaw fi déployer ay moyens ànd koog le maire de la ville ànd koog tous les autorités territoriales. du département de Pikine mais vraiment dafa mel ni affaire bi sax ñoom yëguñu ne yëgu yëguñu li xew te loolu seet déplorable wax dëgg yàlla pour de grâce pour la prochaine fois bu ñu ñëwatee di bay armeel yi nañu xam ne ñoom ñi koy bay ñoom lañ koy defal seeni waajur a fi tëdd seeni doom a fi tëdd seeni nday a fi tëdd seeni sët a fi tëdd seeni bokk fi tëdd kon liñ ci man nañ koy jàppale waa Pikine di ko jàppale ñi nga xam ñooy ñëw di jaayante ak yàlla di aussi fi ngërëmal yàlla. Ah, sa moromu jigéen ñi lan ngeen wax comme gis nañ ni yow yaa dugg ci ci ci duus yi di ko defar kon yow lan ngay wax sa mbokk man sama moromu jigéen li ma leen di wax mooy fépp fa armeer nekk te nga dend ak moom nga gis loo xamante ne waroo ko faa gis demal nga jaayante fa yàlla fii jarul ragal jarul ragal ay nit rek fi ne jarul ragal boo ñëwee yàlla nga fi fekk. man damay ñëw fii benn jour damay ñëw man kese maa fi nekk ak ak néew bi damay dugg sa biir sumeeku raxas na yàlla suñu borom maa ngi nii nuyu néew ñaanal leen doog a liggéey. waaw ah, yow da nga ñoom dañoo ragal. loolu laa gis ndax koo wax du nangoo dem tan lu mu yàgg-yàgg da ngay dem.